maa ngi tudd yab sa xànj ñu gën maa xamee ci borom kaala gi dëkk Touba ndindi sëñ man nag ab Baye Fall laa. Euh, réew mi moom da ngay dégg sénégalais di wax naan bu njëkk la gënoon na neex loolu nag daa am sabab ndax li nga xam ni moo ko sabab moo doon loo xam ni euh, li ci njëkk moy ak man xam nga doomu aadama moom soo manee hmm, da ngay xam li ngay def. da ngay xam li ngay def ba pare tamit da ngay man li ngay def moo xam ki togg moo xam ki tabax ci lum ci mën doon rek teg ko ci xam-xam boo ko tegee ci xam-xam rek yow se mbir day day daal di am jàppandal. Ah, man de gëmuma ni xam na bi ma ko xoolee ci li nga xam ne man moom laa jàng maanaam man damaa wax benn waay ma ne ko damaa nekk homme de science man damay yëngu ci science maanaam la jàkk xam kii tuyee yow yaay kan tu viens de où tu de qui man damay dox ci yooyu gis nga nit ñi dunay dof man nag maa ngi sant yàlla bu baax ndax euh, li nga xam ni moom moo tiim waa réew mi ba tax ñuy yëg li ñuy yëg ba yuuxu man loolu tiimuma man leneen lu dàq loolu lu gën loolu moo ma tiim waaye nag nit ku ne amoo ku dul sa population ba tax na euh, man sama population moom laa am muy doom aadama yi may jaxasool ndax boo juddo ay doom aadama lay te soo fi bàyyi tamit ay doom aadama ñoo gunge kon doom aadama yi bu bu ndee wax ni mi ngi lijjantiku mi ngi dox danga nga naan alhamdulilah yow mi nga xam ni sun boroom moo dogal sa jaxasoo ak ñoom jaar la ko ci jëmm ju tedd kon bu ñooñu di wax mi ngi dox da ngay xam ne ah mi ngi dox waaye bu ñooñ di yuuxu nag da ngay xam ni kat ndax keneen jaaroon na fi muy maître Abdoulaye Wade ayam neex sénégalais yi di doxle foo dem ci matière bi muy tailleur yi muy mécanicien ancien yi. foo laal ba ci jaaykatu gerte yi lépp di xéewale mais tey boo demoon fu mel ni sama bureau fa mu nekk nga xam ne samay samay samay samay samay xarit fa lañ nekk fu mel ni marché Ocass nga tàmbalee ko centre commercial Sëñ Fallu ndax moom moom moom moom moom moom mooy ñoom ñëpp moom mooy mooy centre bi nga xam moo jur centre yëpp mooy seen way jur moom centre commercial Sëñ Fallu nga dem Massamba Dieng dem Mayoro Dieng dem centre commercial Sëñ Moutala dem centre commercial Sëñ Bassirou mais actualité boo demee da ngay fekk téeri tëdd di nelaw boo demee marché Ocass commerçant yi ñoom Cheikh Diba rien dara doxul ci réew mi lépp a bloqué lu ko waral l' na ne marche pas notre dirigeant il ne sait pas faire ils veulent mais il ne sait pas faire l' affaire de savoir faire réew mi fépp ay metti il faut mu jóge fi loolu sénégalais yi dañ cee war a xar seen tànk tubay man de gi nga sama carte électeur bi. ma nga ci roog seen sama bëñu bu bu sori boobu ma denc. du ma ko génne du ma ko fowee ancien golowaat bi rek lay fowee mi ngi nii sans poche saa yi ma ko laajee ma jox la ko su ma dajee autorité bi ma ko laajee ma jox ko ko waaye ndaanaan bii door a génn numérique bi kooku moom kenn mën tax ma bis ba rek kay tax mu génn. kon li ma leen di wax yéen sénégalais yi bu leen nangu loolu réew mi dafa nekk ci guuta te li ko dugal ci guuta weesuwul njiit lii nga xam ne moo fi nekk dañoo nekk en plein campagne di jëm ci ay élection bu leen nekk yi yem ci làmmiñ kese waaw nangam sangam ak nangam. ndax doomu aadama bi euh, heure wax bu jotee da ngay wax waaye bu jëf jotee da ngay jëf ndax théorie dafa am pratique am l'affaire de théorie mooy lii ñuy waxtaan jëm ci élection yoo xam ne sunum réew la doom aadama bu ne rawatina sénégalais yi am ci ay àq ak ay yelleef. li ko waral mooy da ngay yor sa benn euh, mallette boo xam ne da nga koy duy xaalis ba mu fees dellu. kuy dem juróomi téeméer kuy dem ñeent téeméer te nag li ci gën a garaaw bi ñu demee ba ñëw sama kanam ndax ay réer daf maa jàpp sax fara budget bi sax joxuñu leen ko cinq sur cinq dañuy xaar stand by libere benn cinquante personnes jekki-jekki nga gis ñee xaw a kaas ñu jekki-jekki génnaat lijjantiwaat stand by pause ñu libéré ñeneen ñi ñooñu dem. Euh, loolu yëpp amul solo ndax xaalis seen xaalisu réew la. li am solo mooy économie bu réew mi daa war a dox man ci économie bu réew mi lay dox ndax man bis bi yàlla sàkk nag dinaa jaxasoog lu mat junni nit. ni nii moom moo ko kale mooy euh, gis nga réew ndaanan dëgg du def salaamaaleykum maaleykum salaam rek nga dem jébbalu ci tubaab yi ndaanaan doo def noonu man dama gis keroog bi nga xamee ni sa waay daa jël réew mi yaakaar naa président boobu sax wàcc na léegi président France bi fi nekkoon. kooku pourtant boo ko ne ko jàkk xam ni porte malheur la ba muy door a toog laa ne pourtant waa France def nañ ci erreur. bu fekkee homme de science nga boo na ko jàkk da xam niveau savoir faire am dégg nga ma la wax loolu nag moo dal ñu baree baree baree baree bare ci réew mi tey dangay ngay dégg ku mel ne Ousmane Sonko am na xam-xam waaye nag il doit patienter. maanaam gis naa ni euh, du du du du portail ci sama jàngat. moom ëllëgëm nag dina dina dina am loo xam ni dana ko dana ko tekki ci réew mi préparé nañ signal bi mi ngi moom dafa am ñoo xam yàlla moo leen defal boobu signal ci xeetu doomu aadama yëpp la koy def. am waaye gis nga exemplaire bu mel ne Ablaye Wade wala exemplaire bu mel ni tey ay Karim Wade wala exemplaire bu mel ne monsieur Idrissa Seck gis nga boo xotti woon kaamil bi teg ko wala nga jël ko nëbbu leen ko joxaat leen yeneen feuille ñu bindaatal la kaamit bu mat sëkk te virgule du ci manqué. waaw ci ci ci loxo yi mu war a tàbbi. ndax yi gën dëgg-dëgg sax. judaguñ ko waaye am na yoo xam mën na kaa wuutu. ba nga xam ne lii lu am solo la. ndax tey kii fi nekk koo xam xam ni gënut. waaye yi gën dëgg dëgg dëgg Idrissa Seck la ndax am na xam-xam tarbiyu na lim nekk euh, ba pare ay nattu fekk ko ci mu nangu ko kon loolu dangay xam ni lii euh, nit ku ne li ngay wut il nattu la ci. waaye réew mi dañ ko moom am fi ay bàjjan am fi ay nijaay am fi ay maam loolu duñ ko sàgganee soxna si ndax tey jii euh, lii ñuy def dañoo doon ay ay dongo yoo xam ni mën nañ ni ay ay nit ay nit ordinaire lañ euh, adressé wuñu ni ay maara lañ wala yooyu ndax léeg sax nit. Euh, ñàkk xam-xam ba yaakaar ni euh, ab maara warul dugg ci politique wala nangam ah kay muy citoyen am carte d'identité différence de sant lay doon rek waaye citoyen la bu voté jotee daa am droit dem voté ji kon bu gisee lu ko neex ci réew mi wala lu ko naqari ci réew mi am na droit participer ci. waaw rafet ci njort nag bu élection amee. bo élection amee. ah waaw lii tey élection bi yaa ngi dégg yenn barab yi fitna yi fay am taal otoy jàmbur. ci loo xam ne da nga kaa waroon def ci fair play liñ naan combat bi nañ ko def ci fair play que le ci loolu lañ ko war a def ci fair play nga xam ni yow da ngay tënku ci je xaapi ti xaapi il xaapi nous xaapons vous xaapez ce qui ne xaapi pas on le planque derrière kon affaire bi xaapi buzz tout yu la war a doon. mais di dox ay mécontent yooyu amut sens. bon sama dernier moom mooy tooñkat yi nañ bàyyi tooñ ndax tooñ baaxul. ndax li tax ñu war a bàyyi tooñ xëy na buñ la tooñee liy dëgg sax mooy nga jéggale wala nga muñ waaye tamit yow miy tooñ xam ni tooñ du gàllaaj te moomoo nit ñi te yàlla moom nit lu du jar détail bari na boo xoolee réew mi tey nii mu demee nii ay ay ay Karim Wade bëgg a bokk ay xalifa Sall bëgg a bokk ñu téye leen ci kaso bi mu doon loo xam ni lu mën a ñàkk la. ndax àdduna nit da ngay tànqam lu nit koo gis si àdduna da ngay tànqam lu loolu moo àdduna ñoo ànd waaye njiit nekkul lu ñëw rek da ngay riposter loolu loolu day indi loolo looloo war a tey réew mi fii mu toll mu tollu fi réew mi fi mu toll mënoon na fee bañ a toll.